عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق صلى الله تبارك وتعالى ومجع القرآن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما leen rey seen bopp ba pare ne yàlla daf leen a yërëm alquran te mu wax ne wala tulqu bi aydikum ila tehlukati leen sànni seen bopp ci xalkare maanaam dugal sa bopp ci loo xam ne mën na laa lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba tey ci ahadis mu wax ne bu ngeen nekkee ida sami'tum bi taa'uni bil ardi fala tadxulu فيها فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها bu ngeen déggee mbas maanaam épidémie comme lu mel ni feebar buy wàllaate ci dëkk bu leen dugg ci dëkk bi bu ngeen nekkee ci dëkk tim mbas ba nekk fa bu leen génn ci dëkk ba maanaam kon mu ngi éviter mu ngi sant ni ñi pour ñu éviter lépp loo xam ne nii dana tax mbas moomu wàllaate Seydina Omar radiallahu anhu ci jamonoom daf doon dem Cham fekk boobu épidémie mu nga boobu ki fa nekkoon muy Ubaydat ibnu Jarrah nga xam ne mooy aminul ummati ba Seydina Omar ñëwee ba jub si Cham ñu ko mbas daf fee am mu dogg ne dafay dëkku gannaaw bu diisoog saxaaba yépp Abu Ubayda ne ko lu tax firaara min qadarillahi ya Omar ndax dangay dëpp ngir daw dogal yàlla mu ne ko ila qadarillaahi law xayruka qaalaha mu ne ko bu fekkoon ku dul yow de moo wax loolu ndax moom buggut a uute kooku waaye ànd ak loolu yëpp seet na ama daf ne ko bu ko keneen ku doon wax ku dul yow waxoon waaye dañuy daw dogal yàlla jëm ci dogal yàlla mu joxe misaal mu ne mu ngi mel ni nga amee say gëlëm dem di ut ñax ñu gis ñaari xur xur bi bu baykoor la amul ñax xur bii am ñax boo demee ci xur bi amul ñax ci dogal yàlla nga jëm waaye boo ñëwee ci bi am ñax tim ci dogal yàlla nga jëm kon jullit bi yàlla daf la may xel may la diine joo xam ne dafay dëppoog waxtu wu nekk li nga xam ne mooy maslaax yi maslaax yi doomi adama kon bu mbas amee boo xam ne ñëpp xam nañ ne àddina bi yëpp ñu ngi ciy jël seeni matukaay ba dëkk yi nga xam ne dëgg dëgg ñoo ëpp Sénégal ay moyen tey jii ñi ngi laaj ndimbal ndax am na ñuy dem ba àgg ci soxla cinquante milliards dollars pour xeex feebar boobu kon loolu li ko gën a yomb mooy fi nga xam ne àgg gu fa ñu fexe ba du fa àgg bi sallallahu wax na ci xadis ne laa yuridu mumridun ala musaxin te loolu mooy boroom gëlëm gi nga xam ne gëlëmam yi dañoo feebar bu mu dem jaxasoog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 taw mbooloo mi mbooloo mi it jéem taw ñu feebar ndax diine joo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba wax ci laaj rek man akala minkum haadihi shajarata te fekk laaj la ci jublu fala yatiyanna al masajida képp koo xam ne dafa lekk ci yéen eh, maanaam laaj nga xam ne xet gi rek mën naa gêné nit daf lay gêné rek te laaj ku nekk xam ne dafay faj ay yu bëri bul ñëw jumaa ji kon tim ku am feebar mën ngaa ñëw jumaa ji ku feebar tim mën ngaa Euh, moytandiku dajee boo xam ne mën nga fa jële feebar waaye kii fegal ñëpp feebar mooy yàlla tabaraka wa taala ànd ak jël matukaay yi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu musal suñu réew ci jàngoro ji nga xam ne jàngoroy xol yi bokk na ci li ko indi yàlla musal suñu réew tim ci jàngoroy xol yi yàlla delloo ñu ñu nekk ay jullit dëgg-dëgg yàlla def ñi ay mbokk dëgg-dëgg yàlla ci yàlla musal Sénégal ñim jot yàlla na yàlla saafara leen yàlla musal ci euh, alamul islaami yëpp musal ci Afrique yëpp musal ci monde bi yëpp ndax àddina bi tey benn kër la ku jàpp ne dëkk sàngam moo feebar sa dëkk feebaru xamoo ni àddina bi di doxee kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yëkkati mbas mi yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na yàlla musal ñu yàlla na yàlla ñu ci imaan gi nga xam ci la ñuy ndimbalam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbootaay yenn mbootaay yi sax jël nañ ay matukaay ci daara yi nga xam ne rawatina ñi ñiy dem ak ñëw loolu yëpp ñu ngi ciy jël ay matukaay lépp luñ man ñu ngi ciy xeetaate lépp luñ man maanaam ngir duñ rek benn bés nga am ci li nga bugg yëpp waaye eh, ñi ngi ñaan ñëpp rek ñu jël seen matukaay ci lépp loo xam ne nii mën naa musal nit ci ci feebar bi yal nañ ci yàlla musal asalaamaaleykum alayka salaatullahi thumma salaamu fa